mbe duwala nalfaba nalfab dokumo nama nan sila kafo ko ñim partnership men ben tema fala sa bambang madaman dol bebe banko kan adu banko din wala monti banko la kayro na kayro lam ala tanu ala ma en tankala me ala tanu lam wa akhiru da'wana anna alhamdulillahi rabbil alamin baraka bake baba tamel sinio a ñin tande ko gamsel ning gamsel gamtel ning islamic council la partnership ñin lota fanna fulo men kan kumata bake wala ka banko samba ñato ka dino samba ñato ko yom kul men ka kumata bake andon di amala fulo be atane ko na banko ñaton ko euh memu na president ti ala lo nya kendo fana na le gamsel kanyen kolke kan nyaji be fana atle gamsel lo oto gamsel fenda bula law tamasel kendol kanne oto fana mu kul men ka kumata bake eh pour mol sakaram ro ñama euh sayen janding president be diam la be ya ministère bula yaay ministére mun ngaa ñëw yow tam nga waxa mbolo bi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ah jotaay bi nag jotaay la boo xam ne tubaarkaala macha allah yàgg nañ koo def xanaa dañuy defaat rek waaye ñu ñ koy defal ñoo ko moom defaluñ leen ko xam nga nit dafa am lu mu moom waaye laajut la ko waaye moo ko moom yow nga toog nag ba xam ne moo ko moom nga oo ko ne ko kaay jël si ko loolu la ñuy def ak yéen mayuñ leen jëlewuñ sarax dañ leen jox li ngeen moom li tax ngeen moom ko mooy compagnie bi dama wax démbane mu neex mbaa mu safaanoo neex bu Gambia la amuñ ci ci benn laab-laabee ne du bu Gambia bu réewi Gambia fii la ndax li ma wax dama ne mobile dafa yàggoon di am ci yeneen réew yi waaye amutoon fii ci suñu réew waaye ñu ne loo ñàkk ci àdduna rek amuloo ko boobu yàlla daf la joxul njit gu baax bu la joxee njiit gu baax loo ñàkk bu ko yëgee nga am ko jërëjëf ba mu ñu joxee Yaxya Jammeh mu dem bi gis ne mobile am na ci àdduna si yëpp waaye ñëwagul Gambie mu indi ko moo ko indi fi ci réew mi waaye bi mu ko indee nag bu mu ko tuddee Gamcel mu mel ni mooy Gambia sel bu Gambia la ñu jël turi Gambie boole ko ci muy Gamcel di Gambia sel waaye su fekkee ne Olof Njaay dafa wax ne loo defati rek nga am ñu la ca topp santal yàlla te xam ne la nga doon def baax na. ñu indi sel dugal ko ba ku nekk di wax ñëpp xam luy wax ji xam nga li gën a neex ci li gamsel def fii ci réew mi mooy dañ dem ba kenn umpante wut ak kenn ndax ah, yaakaar dafa am économique boo xam daf ko indi ci réew mi mooy bu njëkkoon da ngay jël moto dem na yaa ngi seeti sa mbokk dem ba foofu doo ko fa fekk nga ñàkk sa moto paasaat dem léegi loolu yëpp dafa jeex da ngay ker oo ko yaa kër mu ne la kër nga ne ko ñëw yaa ngi kër nekkuma kër kon soo ñëwee kër ooma kon am na loo xam ne lii Gamcel indi na ko mu wàññi li nga xam ne yàq woon ñu ngi koy def ci réew mi ci kaw dem ba kër jàmbur doo ko fa fekk waaye léegi lu amatul léegi foo dem rek da ngay borom ba xam ne mu fa nga soog fay dem te loolu yëpp Gamcel la ko fi indi. amoon na jamono joo xam ne nit dina am jabaram mu ëmb nekk ci kër gi mu xëy suba dem liggéey su xëyee suba dem liggéey wala mu génn ndaw si mun na wasin ginnaawam sax te moom ko yëg que doo xam koy dàkkee. léegi nak ñun dañuy daw dakk leen gamsel dafa ñew rek ñu dakk nit ñi dañ leen di dakk fo nek rek ñu xati la xam nga dañ wax ne gamsel moo gën a sob ci aduna bi ndax moom umpalewu dara mom fo nek mu xam ko mom daf lay top al topel la tudd <laughs> mom al toppe la daf la top rek dara wut top la ci biir kër gi top la ci fi ngay dem lu nek ci àdduna gamsel mo la koy won mo na lan fi la fele la ni la nale la gamsel moy woné yépp kon loolu buñ ko amee ci réew mi ñu indi ko ba yàlla def tey ñoo am ay rakk dañ koy sante yàlla sant yàlla bu mag a mag lañ def ndax suñu amutoon rakk dinañ toogaat ba yàgg ñu ne ndax ñun li ñuy def baax na ndax looy def te amuloo tofo rek baaxut dinaa leen yëgal ne leen li ngeen gis Gamcel di def ci biti li Gamcel di def ci biir te feeñut moo ëpp ci ñoo xam ne ay borom kër lañ ci ñoo xam ne am nañ soxla ci ñoo xam ne muy ñoo fayal seen doom yi school fees yëpp Gamcel di ko def te du ootele moom rek a def fii ci biir mu indi sa nga indi sa kayit ñu xumtoo ko ci biir seet ko jàppalee la ko dimbalee la ko te kenn du ko yëg moo ëpp li ñuy def gamsel daal li wóor ba wóor mooy doomi réew mu baax bu nekk war ngaa am gamsel xam nga Kéba dafa wax ne Nigérien yeeg ku dëkk ci dëkk bi war ngaa am gamsel ah kañ ku yeewoo ci réewi Gambie fii rek war ngaa am gamsel man dama dee wax sax ne toog ba ne Gambien nga te yorewuloo gamsel am na lu des ci yow sa Gambien yaa des na dama wax ne fii su neexee ñoo gamsel su safaanoo neex ñoo gamsel ñoo ko moom demuñ fenn amuñ kenn kuñ partenaire ñun na wu ñoo xees partenaire wu ñoo naar na wu ñoo kenn ñun daal yaay jàmme lañ partenaire moom lañ partenaire te fas yéenee partenaire moom nag bi ilaa yow mi diin moom lañ àndal mooñ ko fi indil te nag dinaa la yëgal lu tuuti lu bariwul suba suñu xëyee ñu ngi seet lu leen bégloo yéen nii fii loolu lañ fi nekkee suba suñu xëyee ñu ngi seet lu tax ngeen kontaan suñ xel ak suñu xalaat yépp ci yéen la nekk dénk na lañ suñu bopp ci ñaan denk nañ len suñ bop ci xalaat dénkal nañ len suñ bop ci rafetal ndax nak loham xam-xam man na gën la xam bopal Yen nak ben xel du doy yeen mi tay mun ngeena a am lo len gis ne suñ ko indé fi dina fi jur lu baax ngeen ñew ne man kat soxlaa na waxtaan ak yeen bañ ne len naam ngeen ne am na lu ma xalaat lo xamne ne buñ ko gam sel kat mun indi gam sel lu ba ñu ne ay ca nañ ca dem ndax lolo ñu fi taxato kon hebuñ seen xalaat hebuñ seen ñaan ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne mooy maye yal na yàlla yokk leen yokk leen sutura yokk leen teraanga jërëjëf yaa ministère sayeng mbe menkelat rom be président commandila islamic council national diam islamic أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Supreme Islamic Council مومي بيتولا gambia misilimo fana be la nga gamsel gamtel nge kontong mose kuma soto min fo ñimbeŋo to jan wolom ni ye tara ko moo jarata ni ye tara ko bunda jarata puruka ka joo ala ŋaniya seneya kaŋ ni ye tara ko bunda jarata pour ka jo ala ala banko nin bankodiŋolu kano kaŋ nin bonda jarata pour ka jo ala loodula la kummaya niŋ ningala bete ala lodula la beteya kaŋ woto gamsel gamtel jarata pour ke jo mm. ila nganiola la i la loo dulaa la kunmaayaa kaŋ na la bete i la banko la i la bankoo kano kaŋ wo mu juloo le ti miŋ ye a loŋ ko a be bankoo diŋo bee la gamteli aniŋ gamsel bari juloo lom miŋ ye a loŋ ko a be bankoo misilimoolu kaŋ gamsel gamtel la lo dula la kummaya kammala ñun ye lo dula mi ye lon ko ni ma korosi se juta to a se doya fe bari lo dula lo mi ye lon ko a kañanta le doron i nu a kono ya tandi le kenebato kono moo ye la ayala credit ko sang puru kala hajo jara ningala credit ko la aya dundiya la mobile kono ye fen lafa ye je ka fo me ko jugal wo be kola koten ke ilanganiyo ye saha ay kende ay bete hani fo itela nganiyo wala mo banko dingo be eta maka bawo mota nebita bari wo mota ngo on tentati amanke sampata amanke patete bari mo mo be gambia kono fonni nga man gamsel sang bar te angani ale wo mi ya sang be ko na eta atuta ala le bulu abadi la jamal bar ite la ngani o banko be ya be la ngani sunkaro si kombe nyimbe ngo minto Gamsel Gamtele Sukro Sang Supreme Islamic Council iba kela nyama ita kela nyama tuteni alatem baralto langaniyo sahata timat ali adi councilor al komisil mol ngania sene adamolom oto kammala nse feo feno wolo mukawo toñatandi anin ka mobe da anin be se alijo kila sallallahu wa wasallam ako man asda ilaykum ma'rufan fakafi'uhu nin moye ko kendo ke isa jo ni ya tara ko ma jorango soto